dañuy jox suñu doyen Iba Kane mu wax ak yow. waaw asalaamaaleykum maa ngi sant yàlla di nuyu di sant suñu ñaari waajur di nuyu waa Kër Cheikh Seydou Sadou Abi di nuyu waa Kër Cheikh wul du maam yëpp fépp fu seetu Cheikh Seydou bu nekk rek ñu nuyu bu baax di la jox sa cër ak sa wàccuwaay. waaw yéen journaliste yi aussi ñu yokk jégalu rek. waaw ku ci nekk ak xol bi ngay demee rek moo tax mais ñu ngi yokk jégalu ma ah. waaw di nuyu képp ku teew bi di doomu Pikine maa ngi nuyu di nuyu sama mbokk mbër yi nga xam ne ñoo teew fii mais su ma demee ëmbal seen rek dafa yóbbaale ñëpp parce que moom mooy suñu mag ñu ngi koy nuyu bu baa di nuyu autorité yi toog ñu teew fii yëpp ku ci mel ni Isaaxa ku ci mel ni Ousseynou sunu grand chef de fi ñu nekk nii di rakk ci Thierno Ndomba ñu koy ngi lay nuyu tey tey ci yëpp nekk boo ñaan nuyu na la jox sa cër ak sa ak doomu Pikine yi fi ne doomu Pikine yi déplacé wu ñëw yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ñaar de na tey bii nga xam ne point ko gis nan nga ko gisee waaw damay sant yàlla bu baax rek boo ñaa fu mu toll ci Pikine dañ gën a wan responsabilité bi ñu ma jox muy drapeau Pikine moo war ko yóbbu di leen fu mu mënti tey wane nañ ma ko dama ciy sant yàlla bu baax a baax di leen remercier di wax ñu xam ni borom jom la wax drapeau bi borom fula borom fayda incha allah lu métti yàlla incha allah rabbi léegi Boy Niang Boy Niang ku ne xam na ni Boy Niang ku ne xam na ni yaa ngi jëm ci bés bu mag ku ne xam na ni yaa ngi dajeeg un très grand champion keroog bi ma ko seeti jee dégg nga li ma wax ak moom Boy Niang ñu gis ni keroog sa adversaire dafa wàññi poids ba mu bari pare pour doon benn athlète pour mën a jàkkaarloog yow pour xeex ak yow est-ce que yaa ngi pare loolu est-ce que yaa ngi bàyyi xel bés boobu est-ce que yaa ngi bàyyi xel sa adversaire waaw sant yàlla bu baax a baax ñun moom boo xoolee ñun focaliser wuñu la fekk dafa yokk poids wala dafa wàññi poids ñun luñ focaliser muy luñ liggéey ak lu ñu gëm loolu lañ focaliser te loolu liggéey nañ bu baax a baax a baax ànd nañu ñuy war a àndal liggéey nañ nu mu ko waree te bu jour ba incha allah dañ waree luñ liggéey ci kàttanu yàlla waaye le fait que moom dafa wàññi poids wala dafa yokk poids loolu moom la concerné incha allah. jël micro ñaari combat la benn dem ku ne xam na ni da nga jël ñaari avance dafa tin dëgg la moo ci kaw mais sama ci àll ba nii di nga xam ne ci dëgg la moo ci te wax ko ko xool ba tey ci la ko maanaam maanaam la su la leen plus de ko ñaan dana ko waaw loolu wax ju yàqu la loolu ay waxul toog sa néeg la añ ba pare dëkk ataaya quoi loolu wax bu yàqu la man Boy Niang bu nekkee xale jaar ñu jaar ci làmb ak ñu mu am fula am def nga wax da ngay puus da ngay wax lu la neex rek ñun kenn duñu puusoo ñun ñoo xool heure bu ñu neex ñu puus bu ñu neexul duñu puus ñun ay doom picc lañ danga ku mën ci toog waxee waxee dañoo jël ñaari avance waaye ma reeral leen yéen presque dañoo jël ñaari avance waaye benn combat la Boy Niang boo déggee ma wax leen loolu mooy dafa am man benn combat la am benn combat laa nekk di préparé te benn combat moom ma ñor te incha allah li ci kanam rawu di bët dama bëgg ci kàttanu yàlla moom laay ñaan suñu borom moom yor ndam mu may ñu ndam mais dama bëgg bu combat bi jeexee ma la Tapha bu ñu laalee ñu jëflante monde làmb ñu gën a xam kan mooy Boy Niang monde làmb ak si supporter làmb ak ñuy bëgg a làmb Boy nuyu booy ñaa maa ngi lay nuyu ku ne xam na ne dimanche yow yaa war a daral tafaati bi ndax yaa ko gën a jege stade bi naka ngeen waajalee si fair play ku ne xam na ne làmb ji jamono ji nu mu demee naka nga waajalee ak sa supporter si fair play parce que yow yaa war a daral tafaati bi parce que yaa ko gën a jege stade te ñëpp xam nañ la si fair play waaw jàmm rek jàmm en tant qu'ambassadeur pour la non violence mais aussi en tant que mbër làmb mooy sunu gagne-pain ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay damay woo képp koo xamante ni si boo supporteru Boy Niang nga képp càppaacoli foo mënta nekk ñu ñëw ci yar ak teggin ñu ñoo leen dalal ñu li war a def moo ñu duy stade boo mu fees teggin bu fekkee yëngal wala xeex wala dóor wala bëre loolu ñu bàyyi ko seen mbër ci biir géew incha allah ci kàttanu yàlla mais Boy Niang sa adversaire xeexkat la sa adversaire bu ko xam xam ni xeexkat la seetaan goo digganteem ak El Fallou seetaan nga digganteem ak Bombardier est-ce que Boy Niang dafa wàññi poids ci combat bi. non wàññi ma poids dama jël sama poids de forme sama poids de forme loo xamante ni sama bët bi ma rek sama yaram def ko mooy sama poids de loolu laa am moom laa bëre woon contre Sa sant yàlla contre Lac de Guiers gis nañ ni dafa yokku ma def indiwaat li ma amoon jël ko téye ko parce que loolu laa moom mooy sama yëf beneen bi mooy xeex wax naa leen ko nee naa leen yéen a ngi xeex waaye moomu ko waaw loolu nag waxuma ko parce que dama taxaw fi ngeen def ma ay micro yéen a ngi jiiñ Tapha Tine xeex waaye moom ko man benn poids yab ma ku ma ci am na fu mu jaar ma ak yow ak ku mënti toog amuma difficulté pour xeex ak benn mbër ci arène bi ku bëgg ñu weccoo xeex rek ñu weccoo xeex amul benn problème. mais xeex moom bu ñu ko dee définir xam la mooy xeex précision xam bu baax koy dóor loolu mooy xeex nekkuma rek damaa yor ay loxo di sànni ay kuréel déedéet damay am précision xam bu baax koy dóor loolu mooy xeex te yàlla def na te yàlla def na te yàlla def na ba ñu nekk xale ba léegi jàng nañ ko dem ci ABC jàng ko ba mokkal ko sant yàlla bu baax a baax. moo daan daan bu bëggee ñu xeex rek dañuy xeex yàlla xam na ko. ñëwal moo daan daan. waaw waaw loolu wax day wax lu ko neex rek bu ma njëkkee mooy Paaku Lambaay Paaku Lambaay ci Pikine la bokk maa ngi nuyu ñoom sa jël sëñ ci faaw ñoom Thier sama grand loolu moom waxtu yàqu la loolu amul problème tu fekkee ci saas nag bu ñu xoolee ci làmb Tapha Tine maa ko may sens bu ñu xoolee ci làmb moom ma jiitu ci làmb dëgg la waaye fi ñu bëree maa moom maa ko may sens parce que gars kenn bu ko woon jël fi la gars yi ma may ko sens ba rek moom ci ci niveau làmb ci niveau làmb maa ngi sant yàlla bu baax yàlla yàlla xeeb dool yi am na fu ma yeg foo maa ngi sant yàlla dernière boo xoolee ci lamb man maa ko may sens waaye may sens ñaaka may sens yooyu yëpp ci làmb ji comme li ma wax léegi rek lamb ji mooy maam moom am suuf la gën a suñu diggante ñu jëflante bu baax a baax ñëpp kontaan incha allah. yaat ma seen news yaat ma seen news yaat ma seen news mu gaaw ah. moom am rek. làmb moom li mu am rek mbër bi da koy jëli mbër bi nga daje ak moom mbër bi mu jël si la ñett yooyu ñu am waaye dafa ñun boo xoolee dañu dañu keppaaru mbër am suñu Maam Diop a baax am sama papa Pape Diop am sama papa Pierre de am sama papa Pala ba am sama papa am sama papa ñoo xamante ni ñoo ma yar ci làmb donc nag li ñu yóbbu ci géew ba loolu ñun la kooteel na suñuy bagage bopp la loolu bàyyi leen ko ñu booy sa combat Sa Thiès nga ne bu jeexee jeex na contre lan la lan mooy waaw wax naa leen ko nee naa ñool tab bi moo gën gësam ñor taat bi moo gën gësam ah. waaw ñor taat bi moo gën gësam même mango bu ñor taat bi boppam lekk koo gën neex boo gësee mu wadd. non non Mansour Diop du jëri kii sama papa la. waaw boo xoolee Mansour Diop ak Dégol. Dégol dem na sax ba dañ koy wax Dégol Diop ndax Mansour Diop ak ñoom Pape Diop Boston. waaw donc loolu démb le daal ñu ñoo ma juddul ñoo ma yar. donc su ma amee bis nag fépp fu ñu nekk dañuy mën a ñëw toog balaa may jàllale maa ngi maa ngi jégalu encore. kii taxaw di ci nekk ci ginnaaw muy néegu yàlla bi waaw di jégalu bu baax a baax a baax a baax incha allah. dernière question